ab groupe bu xale yu góor ñoo jàpp benn xale bu jigéen doon ko tëddee képp ku ci nekk ci ñoom ca plage golf bi dal leen ak jàmm mbokki internet yi ak Miss News 221 ñu daal di ñëw ak yéen ci l' actualité du net daal di koy tàmbale ak mbir mu doy wax bi nga xam ne nag moo daal di xew foofee ca plage Malibu bi nga xam ne moo nekk ca golf waa journal Les Échos ñoo daal di fësal yeneen information bii mbir mu doy wax nag mu ngi xew le dis novembre bi ñu génn dafa am benn xale jigéen ba nga xam ne mu mu ngay wuyoo ca tuxu a sant bi di tàmbali ca eh, nd moom nag euh, jour boobee wax nañu ne dafa àndoon ak faram ba nga xam ne mu ngay wuyoo ca tuxu Ibrahima ngir ñu daal di mën a dem fofé firme gi par la suite nak gannaaw bañu fa àggee tambali won di flirter comme euh, un couple normal ñu wax né dañoo daal di jéki jékki am envie daal di sëy nekkoon nag di def en plein air fofé ci plage ba la ñu doon sëyee ci biir lolé nak la ñuy daal di gis groupe bu xale góor ya nga xamné dañuy ñëw daal di leen intercepter du ñu dañuy présenté wu ne ñoom ñooñee ay policier lañu daal di sàkku képp ku ci nekk ci ñoom mu daal di leen présenté ak carte d'identité nationale xale bu góor bi di Ibrahima daal di génnee bosam wan leen ko ñu ne ko yow d'accord yaa ngi nekk en règle daal di jàll ci xale bu jigéen bi di AND moom nag mu daal di leen xamal ne carte d'identité bi muy génne daf koo fàtte ca seen kër ñu ne ko nag duñu ko bàyyi mu daal di ñibbee noonee il va falloir que ñu arrêté ko daal di koy yóbbu ca post ba bàyyi ba mu fanaan fa foofee nag la xale bu góor bi di Ibrahima sàkkoo ci ñoom ñu bàyyi ko mu dem récupérer motoom bi nga xam ne bàyyi na ko ci bi ngir mu daal di mën a ànd ak ñoom ca commissariat ba gannaaw bi nga xamee nag moom nee na dafa demoon daal di wëri ji li nga xam ne moom moo nekk motoom bi mu ñëwee nag di leen wax ndekete ñoom ñoo ñëwee groupe xale yu góor yi jël nañu xale bu jigéen bi daal di dem làqatu ak moom fenn képp ku ci nekk ci ñoom di sëy ak moom ba ci kenn nit ki nga xam ne moo doon sàkku ci ñoom ñu daal di koy arrêté ndax nag yuuxu ak joytu yi nga xam ne xale bu jigéen bi mu ngi ko doon def dafa daw yaramam loolee sax moo tax amul woon xolu moom aussi mu daal di àgg ca kawam yemuñu ja ñoom groupe bu xale góor yi dañuy récupérer waale numéro xale bu jigéen bi pour prochainement bu ñu ko soxlaa gannaaw nag ba ñu génnee ci tali bi daal di fay daje ak ki nga xam ne moom moo nekk Ibrahima ñu ne ko nag finalement dañuy mujje baal xale bu jigéen bi mu daal di ñibbi këram Ibrahima jël xale bu jigéen bi ñoom ñaax ñu ànd nee na nag gannaaw bi nga xamee ni dem nañu ba seen buntu kër mu daal di koy wàccee ci moto ba xale bi ca la jékki-jékki songu ko di jooy mu laaj ko lan moo xew mu expliqué ko ne ko ñoom ñoo ñeen nekkuñu ay policier ndax képp ku ci nekk ci ñoom daf koo daal di violé mu ne ko nag ñëwal ñu dem ca poste de police ba daal di fay déposé ab plainte loole nag gannaaw bi nga xam ne jëf nañu ko plainte contre x boobee la ñu tàmbali nag di daal di amal ab recherche comme nag la ñoo récupéré woon numéro xale bu jigéen bi

ñu daal di leen fàttali sax ne récemment aussi gis nañu fi kaawu kii di jay na ba Sow di ab xale bu jigéen ba nga xam ne mu nga toll ca fukki at ak juróom-ñett dëkkoon foofee ca Linguère moom nag li nga xam ne moo ko dal aussi daal di métti lool nga xam ne benn xale bu góor ba nga xam ne ñoom ñaar dañoo nekkoon ca buumu sëy gannaaw bi nga xamee ni daal di nañuy divorcé Dieynaba dafa plongé wu ci ab dépression gannaaw nag bi nga xamee ne mu ngi doon def ab dépression ñu wax ne mardi bi seen waa dañoo jékki-jékki gisuñu ko gannaaw bi ñu xëyee di ko wër daal di koy fekk à sant mètres du village ca ab garab nag muy lang maanaam génn na àdduna dafa xaru wala dañu ko daal di far bu pare daal di koy similé ne dafa daal di xaru en tout cas gis nañu ne jël na ab morceau daal di takk baat ba ca garab ba tànk yi di lang par la suite nag la ñu daal di alerté takk der yi ak sapeur pompier yi ngir ñu daal di mën a ñëw récupérer néew bi ab l'enquête nag daal dinañu ko ci ubbi mbokk ya daal li nga xam ne njoxtu nañu ko mooy jey na ba dépression bi nga xam ne mu ngi ko doon def gannaaw bu mu tàggu ak borom këram moo tax mu daal di euh, xaru noonu am ñeneen ñi nga xam ne nag nee nañu en tout bi dong moom moo mën a yeewi askan wi enquête bi dong moo ci mën a indi lu ci leer ngir ñu daal di mën a xam réellement ndax kii di jey na ba moom moo daal di xaru wala dañu ko far ba pare daal di koy maquiller en suicide euh, comme d'habitude ni nga xam ne dañu ko fi gisee ndax ca wàllu suicide boobee ñu daal di fàttali ne ni ki démb foofee ca Jurbel gis nañu benn taalibe ba nga xam ne mu nga toll ca juróom-ñetti at ñu daal di fekk néewam ca ab teen gannaaw nag ba ñu bëri doon joxtu ne xale bi xëy na dafa daal di daanu ki nga xam ne moom la àndaloon nekk ab moroomu taalibee ba nga xam ne mu nga toll ca juróom-ñetti at moom moo daal di expliqué takk de yi ne fi jëmeewul jëfeewul noonee dafa am benn xale bu góor ba nga xam ne ñoom ñaax dafa am ab altercation bu doxoon ca seen ab diggante koke moo ko daal ba max ba mu daanu ci biir ten ba ba pare mu daldi daw dem yonam ab lanket nak daldi dinañu ko ci ubbi ngir daldi meuna xam ndax moromu taalibeem boobee lamu expliquer ni ki nga xamne moko bu deug la dafa daldi daw wala xale bi accidentellement la daldi ñaké bakanam lépp lu ci amane nak mbokk internet yi dinañu ci ñëwaat ak yéen ak Miss 221 jërë ngeen jëf